dañuy def tey dafa day wax mënta ñàkk ci liggéey bi ñu liggéey ñun en tant que ñu fi nekk askan ndax lenn jiituwu ci suma mbirum sociale te social mbirum santé wér-gu-yaram dafa nekk bànqaas bu am solo solo boo xam ne nii da cee nekk euh, bis bi ñuy dajal tey jii nag bis bu màgg ci conseil départemental comme niñ ko waxee léegi euh, ñu war a jàppale war a taxawu suñu bopp laa mën a wax ndax ñi ngi koy jox ñi ñuy jàppale suñu njaboot lañ ndax ñoom kenn ku nekk am na lu mu war a gis ci conseil départemental wala ci mairie walla ki nga xam ne njiit la yor baatu askan bi am na taxawaay bu mu war a taxawu ak man askanam ñun loolu lañ gis ba nga xam ne lépp lu ñuy def ñu it danañ bàyyi xel li nga xam ne moo ñu fi tax a indi moo ñu fi tax moo ñu tax a jóg ndax suñu liggéey xëy na yaatu na danañ taxaw ci wàllu njàng mi di tabax ay ay lycée di tabax ay collège wala di tabax ay poste de santé wala ay centre de santé yooyu yëpp dafa bokk ci suñu liggéey kon li nga xam ne donc dina gën a jàppale population yi mu nekk gis-gisu président de la république ndax ñun lépp lu ñu def tamit muy mairie muy département ñu fàttali na ci gis-gisu président de la république ndax ay bànqaas yi nguur gi lañ muy maire Touba ak maire Gossas ak maire nag département bu Mbacké département bu Ndiarème ak ñoom ñëpp ci nguur gi lañ bokk ay bànqaas yi nguur gi lañ te nguur gi ki ko yàlla dénk mooy président de la république moom la moo am gis-gisam ba gis ne lii baax na ci réew mi jox ndigal préfet yi ak gouverneur yi ak préfet sous préfet yi jox ndigal président département yi ak maanaam maire yi bu ñuy doxal gis-gis boobu boobu nag da bokk li ñaan séew mi muy couverture maladie universelle bi nga xam ne moom lañ taxawal tey jii di ko jëmmal convention bu am solo bu ñu war a signé teg Euh, union de mutuelles du département kon gis-gis boobu nga xam ne moom la président la du am ni gis bu rafet boo xam ne nii dafa jëm lu dimbali doomu aadama yi ci wàllu wér-gu-yaram loolu ñun la tontu fii ci département bi pour jëmmal loolee def ko priorité def ko maanaam farata ndax farata mënut a weesu loolu ndax xar mu département bi ni mu tëddee ci wàllu développement dafa feeñ bu baax na war nañoo taxawu ñi nga xam ne ay néew doole lañ dëgg la Touba bokk na ci li waral loolu ndax tubaa réew mépp moom lañ yaakaar réew mépp fii lañ jëm si kon nag kilifa yi nag ci biir Touba am na taxawaay bu ñu war a taxaw ci département bi pour gën a eh, jàppale ñi xam ne ay néew doole lañ te loolu suñu bokk lañu ko defal kon li ñu def tey mu jëm ci ndongo daara yi mu jëm ci élèves yi yi nekk ci lycée ak collège yi mu jëm ci yeneen néeg doole yi xam ne tamit Serigne Khadim Ndiaye moo ñu jox li ci ëpp ci ñi nga xam ne ay néew doole lañ nekk ci département bi ndax du Touba rek la yem wala Mbacké rek fépp ci département bi muy commune yëpp ñoom ñëpp am nañ seen wàll ci mbir mi commune bu nekk laa ko nag commune bu nekk ci département bi rek. jël nañ fa ay néew doole pour ñu mën a jëfandikoo ci ci mbir mi nga xam ne moom lañ taxaw tey kon lu am solo loo xam ne nii euh, dañ ciy sant yàlla bu baax bi ñu suñ borom joxe xel moomu ak xalaat bi ñu ànd ko conseil départemental yi ak les bi du bureau ñu d'accord ci ne loolu farata la war nañ ko mën a def kon taxawaay mel noonu daal mooy taxawaay conseil départemental nekk fii lu dul dimbali doomu aadama yi. ci seen i bëgg-bëgg yi nga xam ne tënk nañ ko ci politique bi nga xam ne moom la président de la République décliné ci moom mi nga xam ne mooy définir la politique de la nation ñu war ko indi ci suuf maanaam ci wàllu département yi ak communes yi war ko maanaam taxawal war ko jëmmal ànd ko préfet yi ak gouverneur ak sous-préfet yi loolu moo waral tey présidence ak teewaayu préfet ndax pour jëmmal fi toogal fi président de la république kon ñu ngi koy sant bu baax moom ci wàllu woowu di lu suñu cant ak suñu ngërëm ci gouverneur de la région ci ministre de la santé ci le premier ministre du Sénégal et le président de la République pour jàppale gu ñuy jàppale pour ñu mën a jëmmal maanaam gis-gis ak politique yooyu loolu euh, wax di yàlla lu neex ràññee la ci département bi ndax ci mbirum santé wax di yàlla gis nañ préoccupation bi nga xam ne euh, bu am solo woon mooy ay infrastructure ay tabax yoo xam ne nii ay jumtukaay yoo xam ne ay barab yoo xam ne nii ah, nit ñi dañ fa mën a fajoo loolu hôpital bi nga xam ne mooy hôpitalu Cheikhul Khadim muy hôpital bu bees sàq nga xam ne dem na presque trente milliards euh, mi ngi fii te lépp lu nit di soxla ci faju ci am paj am na ci département bi am na ci Touba te loolu kii ko def mooy le président de la république di jàppale tamit ndaamaatu hôpital ndaamaatu xam naa ko baax ndax hôpital ma noonu fay liggéey di jàppale baax hôpital Matlaboul Fawzeyni mu def ay jëmtukaay ak xarala yu am solo yoo xam ne nii di jàppale doomu aadama lay loolu mooy importance ak njëriñ li nga xam ne ak gëdd gi nga xam ne jox na ko département bi te loolu bu ko defee jàpp na ne man lañ ko defal en tant que président du conseil départemental Mbacké kon gis-gis boobu nga xam ne moom lañu am euh, incha allah danañ ko wéyal at mu jot ci jataay yu mel nii ak taxawaay yu mel nii ak jëf yu mel nii di gën a jàppale néewi doole yi wax nañ ko sànq ci 2014 2015 defoon nañ jël nañ junni ci yu mel nii ren ñu jël ñaari junni ñaari junni ah. donc ñaari junni ak ñetti téeméer rek fukk ak juróom jël nañ ko ren bu déwén incha allah am nañ yéen mu yokk soobee yàlla loolu suñu engagement la bu ñu jël ndax gis nañ ne ci liggéey bi ñuy liggéey daal euh, lii lenn ëpp ko solo pour jàppale population yi kon yéen it ñu ngi leen di ñaan ngeen ñaanal ñu bu baax ba yéene ji am mu jëm ci daara yi di sant bu baax suñu xaal yi wax di yàlla ci taxawaayam muy lu ñu ñor yaakaar naa loolu sax jurul wax lu mu ñor la ndax <laughs> loolu rek moom war a ñor wax dëgg <laughs> rek moom war a ñor mbirum daara rek moom war a ñor kon donc dafa ma ne kon seen moromu ndongo daara moo toog di wax ak yéen jëf ji jëm it jàpp leen ne ndongo daara moo ko def mu jëm ci ndongo daara rek kon ngeen sàkk ci yéen ñaan ndax am nañ seen yaakaar seen i jëfandikoo alxuraan moom ak yi xasida moom am nañu moom yaakaar ci bu ñaanee yàlla dana ko def kon ngeen ñaanal ñu nit liggéey bi nga xam ne moom la def population yi jox na ko am ci ñun yaakaar yaakaar jooju ñu def ko ni ñu ko bëggee te loolu visite euh, tey bi nekk na ci bis yi nga xam ne incha allah dana wane yeneen bis pour suñu taxawaay ci loolu. kon pour jeexal rek di santaat ñëpp rek di sant waa commission bi di sant waa union départementale di sant Birahim ak union bi ak le sémi. di leen sant ñoom ñëpp wax dëgg yàlla seen taxawaay ndax liggéey bi du war maa koy def. xëy na mën naa am gis-gis bi waaye au plan technique am na ñu koy def mooy union départementale bi taxawoon nañ commission santé commission éducation ak ndongo daara ñëpp waxtaan nañ bu juboo ci li ñu war a def kon loolu lu am solo la di fàttaliwaat suñuy cant ci Serigne Mountakha Bachir di ko jaarale ci Serigne Moussa sëñ ah, sëñ Moustapha ñi xam ne sama lépp la moom ndax way juróom Serigne Moussa dafa maa taxawu bu baax jamono yi ñu nekk Kaolack di jàng li muy nekk sama maam lépp saa su ne semaine bu nekk day jóge Ndorong ak sëñ Bachir di ñëw Kaasu Ngak di ma seet si kër sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ca la ci moom dafa ma encouragé bu baax ci sama njàng waaw ku am solo la ci man nga fàtte mukk kon nag ba ñu gisee njabootam suñu wet wax di yàlla suñu xel dal na di ñaanal suñu Moustapha di ko yóbban suñu naan sëñ Cheikh mi maanaam maanaam xalifaam tamit sa borom gëleen a taxaw gëleen a sàmm sëñ mi kon nag ñu jottal suñu kàddu cant ci sëriñ Mountakha Bachir xamal kon fii ñu nekk moom lañ fi nekkal li ñuy def moom lañ koy defal kon ñu sàkk ci moom ñaan di ko déglu saa su nekk ci ak bëggam di ñaan sañ borom subhanahu bu ñu kenn gis ki lu ñu tere yàlla ñu yàlla dimbali ñun ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah barakatu mu nekk mbég mbégte lool ñëw ci cérémonie bu mel nii nga xam ne dafa am ay mbir yu bari yaa nga xam ne que moom lay boole d'abord mu nekk cérémonie ba nga xam ne day fësal liggéeyu conseil départemental nga xam ne comme ni ko président waxee démembrement bu état c'est-à-dire man lay wax bu état état du Sénégal nag yàgg na taxaw population yi parce que li nga xam ne ko mooy tax a jóg état chaque fois mooy rek xool jafe-jafe population mu xool nan la koy saafara président de la république bi mu ñëwee au pouvoir li nga xam ne moom la jiital wala li nga xam ne que moom lay gën a wax ci sa politique mooy li ñu tuddee équité territoriale maanaam Sénégalais bu nekk. lu manti nekk sénégalais la te lépp la nga xamee ne moom la waroon ak moom war na ko am fii mu nekk tey nag ñuy wax ci euh, enrôlement ay sénégalais ci mutuelle de santé yi loolu dafa bokk ci li ñuy tuddee euh, facilité à l'accès aux soins de santé ndaxte Sénégal dañ koy wax rek waaye am na feebar yooyu am sax sa jaboot wala sa saw askan si boppam dañuy jaaxle ndaxte pour fayu dafa metti lool ñu kontaan lool par rapport ak démarche bi nga xamee ne que moom la conseil départemental def parce que mënoon nañu tëju ñoom seen biir kese ñu xool nañ lañ koy jox ñu joxee ko noonu liñ si impliqué service départemental yi liggéey si tamit ak yeneen acteurs pour mën a def un bon choix et li koy firndeel li nga xamee ne mooy bon choix boobu noonu mooy li composé euh, bénéficiaire bu nekkee ne sur deux mille cent quinze bénéficiaires mille trois yi ay ndongo daara lañ loolu day wane na rek am na importance wala am na liggéey bu am solo ba nga xamee ne que def nañ ko ak sëriñ daara fan yi passé rek dañu doon am benn rencontre ma doon waxtaan ak docteur par rapport ak situation sanitaire euh, au niveau départemental dafay wax ne que dafa nekk département ba nga xamee ne surtout après inondation day am paludisme bu bëri fekk fi ñuy gën note noté kii cas de paludisme yi mooy si biir daara yi boo nekkee seen daara nag man gëm naa ne say ndongo bu ñu feebaree rek da ngay jaaxle say ndongo bu ñu feebaree lenn rek moo ko mën a saafara ñu yóbbu leen hôpital wala ci dispensaire bi pour ñu mën a faj yow sëriñ daara bi est-ce que am nga li nga xamee ne que moom nga war a mën a joxe pour que ñu fekk ñoom lu toujours la kay man donc su nekkee ne am na li ñuy tuddee CMU euh, wala mutualisation bu ñuy def ba conseil départemental man na jël si poosam def si loolu loolu dafa nekk lu am solo te loolu dafa nekk la nga xam ne dañ koy war a mën a saluer euh, par rapport ak importance bi nga xam ne moom la am di profiter ci occasion bi parce que euh, dañuy wax région de Diourbel euh, département de Mbacké France dara ni mu fi toll mu nekk beneen offre éducative ba nga xamee ne moo fi nekk te man gëm naa ne daara du ko jàngale xam-xam rek mais pour tabax nit la tabax ay jikko defar ay jikko te loolu loolu moo tax ñu mën a am résultat yu am solo yi ñuy am si tous les domaines te loolu dañ ci euh, remercier bu baax sëñ daara yi parce que man damay faral di wax te ku la yàq ak ki la jàngal mënoo ko fay mënoo ko fay yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen xewal yàlla ndax bénéficié woon naa si wax dëgg yàlla bu baax a baax macha allah tey bu mu ñëwaatee ma fi yàlla boole ma si ma bokkaat si damay sant bu baax di sant sañ Fall. am na njariñ am macha allah. wax dëgg yàlla ndax euh, jamono ji ak tolluwaay bi mettuwaay bi ñu ñëw bokk si ñu la aarale ak santé nu mu seeree nga bokk si wax dëgg yàlla gis nañ njariñ te heure bi lañ ko gën a soxla. Euh, après xam nga comme année bi passé bi ñu joxee suñu carte. ñu boole ak femme mutuelle yoo xamante ni ñoom lañuy ñuy liggéeyandoo léegi mutuelle yooyu tey signé signalé bi ñu la ñuy dem léegi suñ paree ñoom ñuy ñoo ñuy leeral yan mutuelle la liggéeyal ak yan euh, centre de santé ak hôpital yi. non dafay gën a wàññeeku ndax tey jii supposons soo loo su doon kii bi 1000 francs la mën nga ni 200 ngay joxe. waaw par exemple rek laa la mën a jox sa loolu kon xam nga ni kon am na solo bu a jëfandikoo. waaw lii de dañuy wax ne bari na bariwul dañuy wax bu déwénee yàlla na sëñ mën président sëñ Fallou mën leneen lu ëpp lii ndax ba askan bi yëpp mën see bénéficié wu ndax tuubaa dañoo nekk euh, pays boo xamante ni riche na riche ndax pauvreté bi daf nekk te lii ndimbal la. kon dañuy bëgg ñeneen ñu mel ni sëñ Fallou ak yeneen bonne volonté yi bonne volonté yi di def comme seen Fallou ba ñëw di doole yëpp mën see bénéficié wu waaw